sëriñ Basiiru mbokk yi nekkee ci dëkk bu sell bi di Touba. xéewal feeñati na ci Touba Darou Minane. boulangerie pâtisserie Cheikh Mouhamadul Bassir Mbacke. nekk ci Touba Darou Minane. ci mbedd mi ubbikoo ci penku penc mi jëm 28. gérant ba di Serigne Khadim Rassoul Gueye. ñoo jëlee ay matériel yu am solo bitim réew. ay jumtuwaay yu am qualité dëppoo ak bépp norme bu boulangerie di laaj. li ci gën a yéeme. cet gu mat sëkk lañu àndal ci seen liggéey.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 fanweeri fan yi mat sëkk si laa koy woore mel ni mu bulaay ndeg doole ju bari tëcc rek mbaa ma tëcc ba ngeen mokk ana salaamaaleykum sëñ bàcc boo gisee maanaam sama xarit bi almaxtaar nit la ku baax koo xam ni li ko tax a jóg moom dana ko wax waaye jikko ji mu yor di koo fas yéene doxale mooy dimbali rek te yàlla tax jikkoom ñi nag jikko Adja na saar ma ca Paris rek la yor ma ca France di dimbali nit ñi te yàlla tax taalibeb sëriñ Baara Ba mu nit koo xam ni nekk gam nekk Paris ñu baree nga nekk Paris ci leneen waaye moom ngir dimbali rek mi nekk yokk tax moom jikko jooju la yor li ko tax a jóg nag moom xam na ko moom almaxtaar mi man ko naan ba ci sëñ Basiiru suñu àggee nga expliqué ko lépp mu nit la koo xam ne nag du tàngam lu ordonnance du tàngam lu dara loo ko wax tam jëm ci mbindeef yàlla yi dana jóg taxaw na ma def wala moo tax ma ne ko tey jii naan dem ba ci sëñ Basiiru suñu àggee moom lépp dana leeral ndax boo gisee turu sëñ Basiiru nit ñaa ngi ne borom mbég mi ak taar bi waaye lépp da cee laxasu moo tax tey jii yéen ñaar seen waxtaan dana mën a sori dana a neex moo tax ma ne ko nan ànd ba ci sëñ Basiiru moom bu soobee yàlla booy wax dana la déglu kon almaxtaar ah, sëñ Basiiru nii patax ji hmm, Cheikh Seydi ba mu ko lebelee sama xaaj ba tey nangu maa fay. ca bu yàgg ba ca bu yàgg ba tey damay wërwërloo waaye maa ngi nii Paris laa jëm su ma eggee dama koy pelante yut kooku ma fay ma sama xaaj. <laughs> xanaa yëgoo li xew. Ah. Cheikh si bu lay xo bu lay lay ah. def nii. noonu la doon def waaye du la fay. Ah. waaye nag yëgoo li xew gis nga këram. waaw dépense Cheikh Ndiaye moom moo ko yoreel sax damaa far rayaale. ndogu magasin. nga daanu na bu yàgg. màggat seen de ndogu këram màggat ko fay joxe. Hmm. xam nga màggat moom defal yàlla la fi nekk. ndogu màggat ko koy joxe Cheikh Ndiaye moom añ ak reer moo ko saxoo këram. daa feebar jaay na oto ba mu yoroon jaay na kër ga jaay na saret fo saret ba fa newoon sax jaay na ko. Hmm. mu tëdd hôpital. yaa ci a ànd ba Ndakaaru almuxtaar ni ma xoolal chambre numéro 12 bee. Cheikh Seye fa tëdd ma dem yër nii muy xurxural maa ko gis baax na jërëjëf sëñ bi ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziare waaw ñun de suñuy tànk ak suñuy yitte mooy dañuy liggéeyal suñu boroom ci jaam ñi nga xam ne jotewuñ seen làmmiñ jotewu fa wala seen jëf jotewu ñu jiital nag suñu liggéey ci liggéeyal yàlla ci ci wàllum hôpital gis nañu feebar yi ni mu bare te nit ñi di jànkoonteeg ay feebar yoo xam ni son coono bi ëpp na ci ñoom donte gouvernement bi ma ngi koy def la ko warit dañoo bëgg nag ñu ñaan mu yokk loxoom gën leen a dimbali ndax am na ñoo xam ni am feebar nañu te fiñ dëkk sore na ak fa ñuy fajoo beneen bi ci des mooy seen loxo jotul seen ginnaaw waaw mu mel ni dañ cee découvrir benn feebar boo xam ne ñu koy wax jalis waaw jalis bi nag am na ñoo xam ne ñu mu dal fii ci senegal te ñoo xam ne fii leen dale ci suñu gox bi ña ngay dem ba Ndakaaru di fa fajoo wala ñuy dem ba Fuuta wala Maatam ndax xam nga ni ginnaaw bu ko gouvernement bi jëlee en charge mm-hmm. nga xam ne bu njëkk ba nga ko jëlewul en charge nag soixante mille francs ngay fay par séance mm-hmm. te bu ne di nga def ñaari ñaari yoon ci biir loolu métti na nga bëgg koo booleeg ordonnance mm-hmm. léegi nag ñu def ko ay list di jël ay nit waaye nag lim bi ñuy jël ñoom su matee léegi nag feneen fooy fajoo da ngay da ngay fay loole ca ngay ca ngay moom ngay dem di fay léegi nag ginnaaw loolu tamit métti gi di ko tax a métti mooy xam nga ku dëkk ci bawal gii am place maatam bàyyi sa njaboot bàyyi lépp dem toog foofa métti na waaw mhm. beneen jànkonte yi ni jànkonteel daal ak ak ak ak condition yooyu daal lañ bëgg gouvernement bi gën koo xam gën koo découvrir gën leen cee jàppale mhm. ak ñeneen ñi nga xam ne dañuy liggéeyal yàlla ci jaamu yàlla yi ndax feebar yi bari na mhm. te sonle na wax dëgg yàlla ku ñu ci jàppale nag loolu ci la ñuy xeex ñu ci la ñuy dox ci leen ñuy wax. yow mii nga xam ne am nga baat ci gouvernement bi beneen bi ci des mooy la nga mën a yëkkati ci sa wërsëg mu jaral leen nag ngeen jóg yëkkati seen tànk. saytu ñoo ñu nga xam ne dañuy ne ci hôpital yi te mënawuñ seen boor ba buñ ñëwatee faju mi mën a yomb donte mënuñoo wérit ñu mën a euh, ñu mën leen a gën a jàppale loolu moo doon suñu xeex ci la ñuy dox ci la ñuy wax wax dëgg yàlla moo tax bu ñu jógee euh, ñun ñu ni nañ ñëw fii ci yow pour waxtaan ceeg yow ndax loolu mooy ak màgget jéey mu baax moom nga xam moom it euh, bu ñu awee fii moom it day aw côté ba ca des moom mi ngi ci xeex bu mel noonu loolu mooy suñu yittee ci terrain bi moom mii nag mu indi woon ma fi pour ma jot li message bi ngir boo amee kàddu ca gouvernement ba mhm, mhm. wala ci sa moyen bopp ñu saytuwaat hôpital yi ak nit ñi nga xam ne dañoo feebar ñu gestu leen man leen euh, man leen jàppale daal lool ñu liggéeyal ci yàlla jaamu ci yàlla daal mhm, incha allah loolu mooy suñu yitte ginnaaw yàlla de Cheikh Ndiaye yor këram ma kon ma da nga man de baara man dama koy jéggal ndax ko jëmoon loo des doo dem ramaare ko jël indi loolu ab jullit du ko def baara di misi ba li nga wax yi yëpp moo ko dal ci ko yoroon xanaa xam ne boo amee ba amatoo maanaam ku la woo ko sax da nga yaakaar ne moo la ko teg. xamoon naa ne ci baal naa ko dong ngay mujj ak moom Cheikh Ndiaye la yar moom sëñ Sidou Moutar ab yar diine teggin ci moom la dëpp men moom képp laa mas a gis ci adduna ku bëgg néegu xalifa ba mu wàcc ñëpp di ku dikk ni Cheikh Ndiaye daa baax moom bëgg néeg barki Cheikh Amadou Khadim maa toog maa toog kilifa gu mag toog na ko billaahi lislaam gépp gërëm nañ allah akbar waay waay waay waay waay wax ji bu baax wax dëgg yàlla rafet na trop te ñun jullit lii rek mooy suñu wareef jàpplente dimbalente fekk ku mënul nga mënal ko ndax euh, àdduna dafa metti te li may faral di wax rek jaamu yàlla yomb na ndax euh, fekk nit ku sonn nga dimbali ko loolu tuyaaba bi ci nekk bul xam nu mu toll. Mm-hmm. nit ku nekk boo xëyee boo génnee sa kër koñ ba nga dëkk rek mën nga faa jaamu yàlla ndax saa yoo génnee sa kër di dox dinga gis lu la jaaxal di nga gis lu la yéem loo xam ne mën nga koo faj faj ko jaamu ci yàlla mm-hmm. dimbalante te yàlla tax kenn ku nekk alal jëla yàlla may dala koo dénk defaloo ko lu tax mu mu jox la ko kim ko xañit def ko lu tax mu xañ ko comme yow mi la ko yàlla jox dimbalee ci jàppale ci jaamu yàlla yi ah man de li ma yàlla jox nii fas naa ko bokk ak fas naa ko yéene bokk ak jaamu yàlla yi mm-hmm. ñaanuma yàlla gis ku sonte duma la dimbali loolu su ma naree dal yàlla yàlla nangu li ma jox euh, ci gàttal daal lii moom rafetlu naa ko trop te incha allahu rabi dinaa ànd ak yéen fépp fu ñu war a dem wala fu ñu war a teg suñu tànk hôpital bi ñu war a dem ak lépp luñ ci war a def dinaa ànd ak yéen parce que li ngeen def nii dafa raar dafa jafe intention bi ngeen jël nii man dama ko rafetlu trop trop trop trop trop waaw te bu neexee yàlla lépp lu ma ci mën dinaa ko ci def xaaruma ci sax gouvernement dinaa jël samay moyenu bopp ànd ak yéen lépp lu war ñu def ko nit ñi dañoo sonn te jamono bi dafa metti kenn ku nekk li la war mënoo ci dara rawatina nag ay feebar di la dal ay jalis ay jabeet dafa metti waaw dafa metti trop